invité bi balaa ñu leen wax mooy kan xaaral ñu seetaan lii te la léegi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 ak rasul lay gis ngeen ko kon xanaa vidéo bi moom àdduna bi yëpp war nañ ko gis invité bi euh, dafa neex daal dina la wax mooy kan euh, Cheikh Omar Bara Sarr yaa ngi ci Tektal TV Cheikh Omar Bara Sarr balaa ñuy sori vidéo bi nu mu demee nii bi yow jàngkat bi <laughs> yow <laughs> daal jox loxo <laughs> non loolu jàngal non invité bi moom tey neex na wallaay. wa inni a'uuzu bika wa dhurriyyatahaa mina shaytaani rajiim. rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun. yaa xayra munzilil wahaabi asmala wa xayra munzilil habaabi basmala. salli bi tasliimi alaa man faaqa fii xalqihi wa xulqihi ittifaaqa. xadd fakka kabla xadd bassa fadla fa durru wallah wa nafi jaay barki borom Tuuba barki borom Tuuba barki borom Tuuba ñoo ngi nuyu mbokku jullit yëpp di ziar mbokku taalibe yëpp. di leen nuyu ak di leen siyaare waa Tektal TV waaye dem mbégte lool ci seen teewaay ci kër gi waaw ah, bëgg nañ lool Dakar ba fii pare ngay dóor ngay tuddi mooy bu mooy bu nga xam mooy sama xasida ah su <laughs> ba sud sama bayit saddi lisaani nawir janaani safi amaan wasit wasit baraay sax sax ta dayra saddi lisaani nag moom ah <laughs> maa moom ay code la daal <laughs> mais balaa may dugg ci biir sëñ Cheikh Omar Bara Sarr image bi wër àdduna li nu mu boo ko doon indiwaat nu mu yëg jànkat bi jànkat bi dafa am fu mu tolloon xanaa. waaw lii daa mel ni maag yow daanaka ñoo ci xaw a yem. ndax eh. xëy gis ko muy wër ci at. gis muy wër ci at waaw xam naa ne daal li ci li ci yéeme mooy. Hmm. boobu mi ngi tudd turu yàlla wi mu yéeme lool waaye. Hmm. yàgg ñu fa fu kawe mu mu bëgg koo dagg. Hmm. dana ko jàngal mu dagg ko. <laughs> jànkat bi nu mu tudd. Serigne Saliou ku mën a jàng la nag moo mook Serigne Abdou Karim hmm. daanaka màggal gi yëpp ñoo nekk kër ga jàng fa jàng mu am solo waaye fajar gi noonu mu téye turu yàlla bi xam nga euh, ñasee ni hmm. seen turu yàlla bi ni ñu koy jàngee noonu man dafa nu mu may def ci fajar gi nag mu xaw koo téye ba mu ba mu yëngal ma lool rek hmm. mu jékki-jékki nag am ku yuux rek mu dagg ko te fekk ne booba man fa ma toll moom bëgguma mu dagg ko <laughs> daal li nga def moom boo loolu moom àll bi daal xaw ma fu mu jógee. <laughs> doy na waar doy na waar macha kon kii di dalal mooy Serigne Cheikh euh, Cheikh Omar Bara Sarr nga bind Serigne bindal ma Cheikh Omar Bara Sarr ci écran bi moo ngi ci jannatu ku dugg jannatu di wëru Serigne moom ngay set ci Touba bu baax a baax moom nag euh, maanaam kàng foori la daal ci mbir yi maanaam grossiste la ci du ci du ci ku ndaw quoi sëñ Cheikh Omar Bara Sarr yaa ngi ci Tektal TV bu baax a baax a baax. Euh, ñu bëggoon a xam yow wàllum faj ak ñaan euh, loo jàng la loo dond la lu la yàlla may la wala aw fit la wala ngay wut xaalis dafa mel ne yaa ngi sant ba pare ko côté boobu daal loo ci dugal wala da ngaa yërëm nit ñi wala da gis ñëpp di ko def nga dugg ci ak lan la parce que at maa ngi la bëgg a jël émission mais ñuy waaj rek ñuy waaj nga naan nangam nga naan nga jàpp ne daal euh, feeñ bi daal xam naa taxoo ci sawar noonu. mais man ma topp la ci parce que gis bu ma gisee nit mu wax ak man am njëriñu wax ak dëgg yu wax dama yàkkamti indil ko nit ñi ci écran bi parce que man dama bëgg koo xam ndam laa bëgg ci li may def ku indi njëriñ rek ku ku kiiwul nag yàlla bu ma gisati am na sëñ soo xam du leen masa a invité am ñoo xam dootuma leen mas a invité ti ndax lan dëgg gi ma soxla ci Tektal TV ku ko def baax na moo tax ma naan abonné leen kum neex nga abonné kum neex bul abonné Penda Fall sama kaw ak ñeneen ñi mais li ma ci jublu mooy njëriñ lan yor ci Tektal TV Euh, te seen résultat mooy suñu alal kon surtout waa diaspora bi waaw boo doon résumé yaay kan ci tënk daal yaay kan noo koy wax. waaw xanaa di santaat yàlla bu baax ci laaj bu am solo boobu Cheikh Omar Bara moom. Hmm. li jiitu ci adresse bi mooy taalibe Serigne nekk koo xam ne lii mu yor di ko def mu jëm ci wàllu faj ak wàllu ñaan. Hmm. mën nañ na ndono la. waaye ci kaw ndono loola tamit mu nekk loo xam ne luñ ko tarbiyee la hmm. jàngal ko ko tarbiyee ko ci. ba noppi jox ko ko jox ko ci ndigal. ndax lii ñuy def nekkut loo xam ne dañoo dem ba mu neex ñu rek ñu jóg di ko def sunu wayjur wu góor moo ko yor daan ko def. yaakaar naa bari na kilifa yoo xam ne buñ déggee ma ne Baye Adama Sarr. dinañ ko xam. waaw danañ ko xam moom hmm. Touba ak fudul Touba sax. Euh, bari na kilifa yu nekk ci réew mi tey. Hmm. Euh, jamono yi nga xamante ne moom mi ngi ci nekk may ànd ak moom. Hmm. di liggéey. Euh, daanaka bon ma gisee danañ xam ne kii kat mooy ki daan ànd ak waajuram Euh, yàlla dogal booba nag ñu jàng alxuraan ba jógee ci daara ji ànd ak moom mu ñuy tarbiya dañu jàngal liggéey bi boole kook di ñu di ñu li nga xam ne dañ koy jàng mën nañu ñu koy jàngal li nga xam ne nag du lu ñuy tiim ci téere di ko jàng ci nit ka ko koy def mu koy def ci ñun moom it mu jëlee ko ci way juróom Aline Binta Sarr Aline Binta Sarr Maam Raam Sarr Maam Raam Sarr Alaaji Malick Sarr kon ndono la loo xam ne li tàmbale suñuy maam ba fii nu toll amu ci kenn koo xam ne mas na def beneen mécc ñu xamee ko ko lu dul faj ak ñaan mm-hmm. kon lu sama maam dollu ci maamam la maa jël ko ci maam ba mu yegg suñu waajur mm-hmm. waaye bi mu suñu waajur ginnaaw bi ñu jàngi ba noppi nag mm-hmm. mu tarbiyee ñu jàngal ñu xam-xam jàngal ñu dëgg-dëgg liggéey bi ñuy def ba noppi jox ñu ci ndigal kon nekkut loo xam ne dañ ko wàll yaani wala beneen sëriñ bu naan la Cheikh Omar fii la jàngee xam wala maa ko jox secret wala nangam déedéet man li ma yor lépp sama waajur moo ma ko jox moom mi ma sama waajuru góor moom ma ko jox donc mi ngi fi waaye léegi yàlla dogal na liggéey bi ñun ñoo koy doxal. Eh, yàlla na fi yàgg te wér. amiin yàlla na fi yàgg te barke Sëñ Tuubaa jërëjëf yàgg te wér ah. ak bépp kilifa diine ak ku bëgg lu baax rek yàlla na fi yàgg te wér bindal bindal maire bi foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci salle bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir Tektal mooy daw ci biir Tektal TV euh, defal 77 818 15 15 77 818 15 15 beneen bi 77 769 21 21 77 769 21 21 Cheikh Omar Bara Sarr nekk ci Touba janatu nga dis ko soxla lu mu ci man mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam téléwu dara te mën na lépp euh, numéro yi nag am na whatsapp yow mi nekk bitim réew bu ko defal audio 10 minutes woo ko bu ko jotul nga rappeler ko wala nga message ko bu tontuwul ngay dolliwaat baneen bu baax a baax a baax a baax euh, lu leen di wax nga am sa GP tamit mu joxal la ko bagage yi Touba la pexe yoo jote say mbir ak foo mën di nekk muy dakaarak ak Mbuur yooyu moom léegi jumtukaay yi bari na fi nga woo ko rek ngeen juboo bu baax a baax a baax nga wax ko farata moom nag pour wax la mooy lan doonu sëriñ bu fi nekk di wut xaalis nii de kër gi defe naa boo muytul waañ waak douche ba rek la kilim yi tàkkul mbedd ba nit ñi bég nañ ci moom côté ba këram gi nekk penc mbay waat la ñuy def émission bi mais bu la neexee danga koy fekki fi muy fajee bu baax a baax janatu kon euh, kii la daal maanaam ku suur a neex a bokk laal maanaam du ko xob na que li ma naan la grossiste la ci mbir yi du ci ku ndaw daal te tamit gëstu na sonn na ci te farlu na nee na ma bu soobee yàlla nit du ma kalaameeg yow ndax lii di résultat naa ci def lu ma man bu soobee yàlla Cheikh Omar Bara dafa am benn mbir boo xam ne que dafa bari Sénégal te fajkat yu bari sax ñemewuñ ko yow daanaka waxuma sa spécialiste la mais loo sawar di ci nekk la muy ñin naan danoo wéradi xel wala bu dee wéradiwul ku xamul luy wéradi xel pour rafetal ko comme bu nekkee suñu biir kër ñeneen ñi dañ naan dof dof képp ko dof yàlla nga wér képp ku doful yàlla bul dof dof yi nag bu leen jàpp dañ ñàkk teggi ne pour xam li ñuy wax lañ ci jublu ku wéradi xel nga ne bu man di doon buy yori buy xataraayoog buy tëb di dalak bu mu man di doon lijjanti ko ba mu ne cocc loolu dafa bokk ci sa domaine ha illa loolu moom koy làmbatu du ko def ñëwoon ñi ci. loolu de yàlla dogal na ni. Mm-hmm. lu ñuy liggéey la ci képp koo xamante ni wér di xel dafa dem ba tàggalikook sagoom yàlla dogal na it euh, bari na lu ñu ci xamee mm. ndax dañuy jël ñoo xam ne buñ leen a jëlee fu mel ni Gàmbeek fu ne lañ ñuy jëlalee ñu mel noonu dañu koy indil daanaka bari na ñoo xam ne tey du ñàkk ne di nga di nga di nga gis image mm. donc buñ leen indi fii ni ñuy mel mara détail yi mm. waaye bu ñu ci ñoom tamit ba seen waajur war leen a jël suñu war a dellu it sant yàlla rek ndax ku dem ba simmi ay yéreem yaramu neen moo ko desee bu mm-hmm. ñu koy indilee fii ci ndimbalu yàlla danañ ci nekk ba mu jëriñ ay waajuram delluwaat ci lii ci ci lu suñu borom mm-hmm. bëgg kon bu bon doon wax ne dafa wéri di woon xel euh, avant ak après avant ak après ñu dem seetaan ko ñëw waaw moom moom moom comme nii nga ko gisee li muy yegsi ku mm-hmm. doon ku doon dóorale moo tax ma génn nii taxaw ci wetu buntu kër gi ngir teertu ko li ma ci jublu mooy ba xasee yegsi jàkkaarloog man lépp lu doon violent ci moom day dañ day sedd guy dootul def dara te boo xoolee beneen vidéo bi déjà bi mu fi defee deux semaines ci la taxaw nii ci salle bi waaw ci la taxaw nii di jullil boppam waaw kon lii léegi nag bi noppee ci loola bi ko mm. waajuram jël sa yëg mi ngi nii mm. nga jàkkaarloog moom te it yaakaar naa mbégte lañ fi génnee par rapport ak ñu koy nii moo jëkkoy taalibe <laughs> gis nga changement si moom rek. ah. ndax mbaa nga changement bu baax a baax si moom rek. Ah. waaw ah, léegi moom daa rus de day waaw ñu ñaanal rek tawfeex ak taysiir rek waaw da nga nii di dem incha allah boss waaw ah, boss jërëjëf waay waaw jërëjëf waay ah, waaw. Ah, oh, kon daal li mooy wér di xel ni nga koy lijjantee daal kon dafa yor jaas yëpp di dekkoon yëpp ñeme nga. am na kon ma fi indiloon bu yàggul yaakaar naa ñoom ngañ mi ñoom Serigne Saliou ñoo ci nekkoon. waaw bi ñu ko indee daanaka dañoo toog. Mhm. fi ñu ko bàyyi diggante bu gàtt daw na ba jàppandu ci fenêtre yi ba nar dem ci balkon bi. waaw nga xam ne daanaka bu ñu noppee ci ñoom mm. day mel ne buñ ne la ñii la woon dootoo jàpp ne ñoom la te kooku daanaka 2003 la tàggalikoon ak sagoom mm-hmm. te ci 2022 bi lañ ko doog a faj waaw te yaakaar naa ne daal ba ci ñi dëkk ci koñ bi sax dañuy dem ba dañuy xam ne mm-hmm. waa fii moom kuñ fi indi ci ku wéradi mm-hmm. bu defee bu defee semaine rek boo génnee dajeeg moom fii ci biti da nga naan kii wax naa mostam problème xel barke rasulullah kon daal man li ma jaaxal xam nga ba mas mas na koo mas naa am lu may jënd ñu livré ma ko fii Sénégal moom li nga gis ci internet bi may jënd fu ni tegi daal ma gis ko commandé ko ñu indil ma ko may ma naan waa ban camion nga yor waa ji nekk ab cag bi mu ñuy tiim ma man man pour man li ma livré li ma livré damay déranger koñ bi waa bi mu ko wàccee ci cag-cag bi ma ne non ci laa bàyyi bagage internet mais yow daal comme ku wér di xel ni nga koy fekkee ak boo koy livré ni mu melaat moom dañuy xam ne original bi ñëwaat waaw moom xam nga li may wax ne saa su nekk mm-hmm. li nit ñi mën a jàkkaar loolu di ko gis. Mm. te te nit ki bu amee xadar ba ñëpp di ko daw. Mm. bu egsee sama kër ci kàttanu suñ borom su ma génnee jàkkaarloo ko moom rek ci ngay njëkk a xam ne kii moom la nekkoon ci moom dina dañ. Mm. ci kàttanu yàlla. dof bu sérieux nag lo maanaam du dof bu sérieux mais comme par exemple euh, koo xam ne que day toog du wax doon magum jëmm di beru nekk ci boppam kese xeet boobu naa ñëw ci rab ko mais bu dee dof la tamit kooku tamit mën nga ko rek la waaw. foofu nga laal sax dafa am solo fi ñu doon ne ba ci xeetu ñu wéré di ni ni nga ci amee ak ki nga xam ne day silence foo ko fekk bëggul biir bi bëggul lu koy déranger mm-hmm. en général nag ñooñ ñi nga xamante ni ñooy ñoom ñooy dof gi comme ni ma koy waxee dana leen faral di waral ñu mel noonu ñoo ci ëpp mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy faral jël ay yenn xeetu tuux mm-hmm. dem ba mu yóbbu leen ci dimension boobu ñooñu en général duñ bëgg biir bi duñ bëgg dañuy beru rek duñ bëgg bokk duñ bëgg def dara loolu day am am na ci nag ci xeetu rab ne biir rab moom mu jógee fa moo tax bëgguma ko kii ko dof laa bëgg a kii bare quoi parce que daf ci am ñoo xam ne li leen di dof loo rab la donc moo tax waaw waaye nag comme comme comme bëgguma dugg foofu mhm. li ëpp importance daal mooy nit ki ak dof gi nu mu mën a mel ci moom bu dee ko violent la bu dee ko silence parce que am na mhm. bi mu ko ñu waxtaan mhm. bi ñu fi defee deux semaines euh, bi ñu toog di waxtaan ci wàllu mbirum soxna da yaakaar ne kii dara mosu koo dal ci àdduna <laughs> sëñ Cheikh Omar Barsa. macha allah mais mais mais mbaa li sañ Cheikh boo ko rek. sañ sa de. <laughs> diw gi daa takk sa côté bii fomp ko. ok diw gi waaw macha allah en tout cas li nga sañ sa rafet na man kay fi ñu toll nii xam la laa bëgg wax Moustapha nañ la wutal soxna su dëkk Touba. Ah, jox la sama kër benn néeg wutal la soxna. bon nga. la yow soxna su mel nan nga bëgg. soxna bu xees. bu xees bu rafet <laughs> bu am yaram wala bu ndaw. bu am yaram soxna bu am yaram bu xees. ah loolu moom dama ci sawar <laughs> dinaa la xoolal ci taabi taalibe yi ku xees ku rafet ku am yaram ñu takkal la ko nga defee jox la jox la kër ga jox la fa nekk ngay gérer ñu def noonu aywa d'accord <laughs> dinaa ko Moustapha dégg nga ndax mu ne man dama damaa bëgg kuy sañse man boo sañsee damay kontaan waaw sama xol day sedd léegi daal kon daal ñu wutal la soxna su xees su rafet. waaw ah. baax na léegi yow boo amee soxna noo koy def. dangay sëy sëy. sëy euh, nooy sëyee nga ni. jaamu yàlla jaamu yàlla ah kon sëy jaamu yàlla la. kon sëy moom ku ne xam na ne nekkul lu ñu war a fooyee dañ ci war a jaamu yàlla. léegi boo amee soxna mu tooñ la nag. moom dañ koy baal. koy baal kon soxna kenn du ko dóor. kenn du ko dóor. macha allah kon soxna ku ko am bu la tooñee da nga ko rabaal. léegi yow boo ci amee doom koo koy tuddee. Moussa. Moussa. man. Moussa alayhi salaam yonent yàlla Moussa. ah gis nga kii la nekkoon de lu mu wax nit. maa ngi koy laaj ne ne nee na soxna moom. lim ci xam mooy soxna su xees su rafet. <laughs> waaw ma ne ko soxna xanaa da nga koy dóor mu ne déedéet soxna kenn du ko dóor dañ ciy jaamu yàlla. <laughs> waaw loolu nag yaakaar naa kon doo faj dof ba mu tane day day wér pile. waaw maanaam tey bu doon chauffeur la. Mhm. boo koy jël si indaaleel ko permis. indil ko permis waaw. ndax koy koy. dégg ko kon maanaam ku ci am am na ministre yuy seetaan seen doom dafa am wéradi xel am na député yuy seetaan seen doom dafa am wéradi xel am na président africain yu man di doon yuy seetaan seen doom dafa am wéradi xel kii nee na wéradi xel ku ko indi gën kaa yàgg un mois du ko mat ci kàttanu yàlla. ci kàttanu yàlla. ak lu ko mën a dofloo muy yàmba gens ak tux ak ñu liggéey ko yëpp. lu mu mën a doon. lu mu mën a doon comme tàqalikoo naa xelam rek. Mm-hmm. te ñu a woon naa xel. Mm-hmm. ak lu ko mën a tàggalee xel dinañ ko delloo ci kàttanu yàlla. mais da ngay dégg parfois ñu naan euh, dof du wér day jël conseil yow sa boo fajee dof det bi fan la yem ab avis bu soobee yàlla. loolu wax la rek. ah ku faj koy wax rek. waaw loolu moom daf dañ koy faj ba mu wér. Hmm, kon bind leen numéro bi mi bi. léegi li may gën a li a bàyyiloo xel ñu bari nag. Hmm. ñu koy moytu mooy ñi nga xam dañu am problème mu xel ñu leen di jox yenn garabu hôpital yi leen di ah. hmm. yooyu moom nañ ko moytu. parce que yooyu daanaka boo indee ko mel noonu moo ñuy gën a sonal sax ci ki nga xam ne. même bu doon na nga koo yeewu te ko jox garab yooyu di ko nelaw loo. moom moo ñuy gënal ki nga xam ne da nga koo soli garab ba yaram bi parce que kooku day dem ba nga xam ne. effet yooyu garab bi di def saa bu doos bi wàccee day tur day tur day turbulé fi yëpp waaw du du may nit ñi jàmm fekk jëlul garab yu nelaw rek du may nit ñi jàmm. nit kooku faj mi day xaw a day xaw a day xaw a. day xaw a waaw. Mm. léegi nit ki li ko dofloo bu dee dañ ne ay xeetu tuur la. ñu war a am lu respecté xaw ma soow yu ñu war a tuur wala lu ñu war a ray te defuñu ko même xeetu dof yooyu itam da koy lijjanti ba léegi. waaw kooku nag ka nga xamante ni moom moo ko dugg ku jógee ca tuur ya dugg ko. xam nga dof dafa am lu doy waar lu ci ne. Mm. maanaam li ma naan dof bi du dof fu ñu toll ne yow mi gis dof bi. Mm. jàppee ko dof muy yëkkati di dóore. Mm. di def ay affaire nga ne dof bi dafa dof. moom yow lay jàppee comme ko dof. parce que moom miy dóor exemple bu xàccee loxoom di dóor yow dóoru la mais li muy dóor mooy daw di la tafu yow wala mooy daw di dugg ci yow léegi moom loolu lay dóor mooy war a dóoram mën la dal mooy ki jël xeer di sànni mooy ki waxtu li muy wax yow da ngay wax ne day waxtu mm. waaye ki xam mbirum dof moom bu jàkkaarloog moom dina mën a gis li dof bi di waxal mm. léegi nag bu ko tàggaleeg loola rek donc mm. su boobaa day dal di nekk en calme dama cee mos a waxtaan ak benn médecin mu ne ma ñoom li ñuy def dof bi ba mu ba mu calmé wu nelaw sur le sang. Mm. mu ne ko man loolu dama koy def te du ma ko pikiir dara. waaw mu ne ko la ngeen di def ba mu nelaw ba ngeen koy pikiir ba mu nelaw mën naa ko def te du ko pikiir dara. waaw waaye la muy waxal ak la muy dóor ak la muy joxoñ mm. moom da koy gis. mais am na sëriñ soo xam bu ñuy xaj faj ci xeetu dof ak yooyu dañu mel ne kuy théâtre doo maanaam dof bi day mel ne ñoom ay wolof la ñuy wax quoi. mais léegi yow ni ngay faje dof la da nga koy xëpp dara wala da ngay jat wala da ngay ñaan wala alxuraan lay doon wala lan la wala sa secret bopp la. waaw loolu nag li ci nekk dafa bari. dafa bari parce que ku nekk ak li koy fajee. Hmm. am na ci koo xam ne tey bu dikkee li may njëkk am na koo xam ne tey bu dikkee. Hmm. li muy njëkk a yittewoo mooy di taal di tux. di taal di am na dof boo xam tàggale mm. mm. mm. loola nag lañ koy dindee du loo xam ne danga koy tiim di jat muy tëb di dal nangam naa demeewut noonu. te yéen ñaar daal la ñuy seetaan. waaw loolu daal ñun. <laughs> barke rasulallah Cheikh Omar Bara Sarr bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saal mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir Tektal mooy daw ci biir Tektal TV numéro bii yow mi am ku amu yow mi amu dof wala ku wér di xel di ko soxla bu baax a baax soit muy mag muy rusloo seeni mbokk xeet boobu yépp moom nag dégg naa euh, li mu koy fajee nag moom di nga génne weexal euh, soit mais dina ki mais booy faj dof balaa may joxe numéro bi mbokk yi dañ dem bàyyi ko sa kër wala dañuy am ku fi resté ak moom waaw sans dépend ci ni muy mel bu fekkee ne nekkul ku violent ku leen sonal man mhm. nañ ko jox garab bi sax muy jëlee traitement yi këram muy jëlee traitement këram waaw mais bu fekkee ne ku leen sonal la mhm. man maa koy yoro sama bopp su boobaa nag du jar mbokk yi kenn di fi toog waaw buñ xasee waxtaan li ñu ba bindante ko mhm. am na fi ñoo xam ne loolu rek mooy seen liggéey waaw ñoom ñoo koy bu dee ko mat ñu koy sang ñoo koy sang ñoo koy toppatoo ñoo koy defar bu fekkee ne seen doom mu dof nag ñu nga xam ne kat mënul déplacé wu ñoo am nga fitu nag ñu indi soit ñu bindal la sec bi nga bind yaa xam ñaata million ngay laaj mais nga fekk leen ci kër ga faj leen mu wér mën na nekk. loolu man na nekk. mën na nekk même bu dee dofum naara bitim réew wala tubaab a nekk waaw loo loola sax yàlla dimbali nañu ci. Hmm. Maroc gii rek bu yàggul jógee nañ fa ci lu mel noonu. mais am na réew mu ma xam moo jëm sax lu mel noonu tax moo tax ma jënd lii. mi ngi noonu loolu du ci dara waaw programme bi jàmbur di ko wax ci kaw de ma léegi Euh, dama bëgg ñëw ak yow ci domaine boo xam ne que euh, buñ fi amoon mbokk Sénégal muy rab yi soit sëriñ si rab yenn sëriñ si yëpp nan rab yi wala rab yi yëpp nan askan bi di nga gis faru rab di nga dégg faru rab coro rab te doo gis doomu rab li ñu jiiñ rab yëpp ko mu liggéey ñu ne rab la ku ñàkk liggéey ñu ne rab la ku amul ku sëyul ñu ne rab la ku ñàkk sa sëy ñu ne rab la ku am ku amul doom ñu ne rab la maanaam ku mari doo daal ñu jiñ ko rab léegi na rab bon ci doon wax ci lu rab nii lay mel si ñi nii lay mel ko ko am nii lay mel bu dee góor la nii la lii la mën a yàq lii la ñu bàyyi la waa adduna yëpp di la déglu ci biir Tektal TV nga wax ñu ci rab ban xam ne lu am la wala. rab lu am la. Mm. waaye fi ma ci njëkkee mu nekk benn pressing bu ndaw. te mm. ma gis ñu bari di ko jaawale mais entre rab ak jinne. rab ak jinne ñu bari dañ naan jinne arab la rab olof la waaye ñoom bokk rab ak jinne bokkul. rab ak jinne bokkul waaw rab euh, jinne dafa ëpp doole rab. dafa ëpp doole waaw mais rab en général yi nga xamante ne maanaam mooy solo nit ñi ci jamono ji yu bari. Mm-hmm. ñu ko koy tudd. damay wax ne boo doon bu doon cent la quatre-vingt-dix-neuf yëpp moom la. quatre-vingt-dix-neuf waaw mais rab tamit dafa am ñaari xeetu rab yu am te bokkuñu. Hmm. dafa am rabu sereen am rab bu ñu wax mbédambet. mbédambet bu dee kenn rabu sereen mooy yi nga xam ne mooy faral di sonal xale yi jigéen ñi ñu koy hmm. woowee faru rab. bu dee mbédambet mooy yi nga xamante ne mooy faral di dofloo nit ñi. Hmm. ak di faral dugg nit ki muy daanu gémmiñ gi di fuur muy def ay affaire du yuuxu. loolu rab boobu mbédambet la. moom day dugg uniquement ngir violent borom day la day dóore day def dara bu ko xiirtalee ci kenn mu bañ ko mm. donc rey kooku moo koy gën a yomb ci dëkk ak moom moo xam yaayam moo xam ku mu mën a doon du mën a def ak kooku mm. loolu rabu mbeddaambet moo koy def bu fekkee ne rab bi nga xamante ne rabu seren la kooku dalay lay bëgg maam moom da nopp mooy tax mu dugg la mm. moo xam góor gi la moo xam jigéen gi la kooku nag bu la duggee li nga xamante ne moom lay njëkk a tàmbalee ak say mbir mooy day dogal fiiraange sa diggante ak nit ñi fiiraange goog nag moom xammee ci góor ak jigéen day dox sa diggante ak ñëpp mooy waral koo waxanteel ba ngeen tënk mu jékki-jékki taxaw du xam lu ko téye man nga am koo xamante ni day bari alal lool ngeen wax dara ba tënk yéen ñaar mm-hmm. donc après mu taxaw doo moom du xam sax lan moo ko téye mm-hmm. même bu forcé woon di ci jéem a def ay yàqu-yàqu la ci jële moom mm-hmm. tey bu fekkee ne jigéen nit mën na koo bëgg ba ñëw ba tënk mais bu demee du delsi wala bu ci duggee rek day commencé gis ay jafe-jafe ba génn léegi jafe-jafe yooyu mën na jàpp ne ci ndaw si la jàpp ne gaaf la fekk ne du gaaf alors que bi nekk ci moom mooy manifesté woon noonu ngir dawloo ko nekk ci góor mën na ko dikkee muy gént di sëy mën na ko pousser tamit muy fowee awraam mm. en même temps mën na ko pousser ci ay xalaat yu négatif góor bu ko am jabar dina gént di sëy rab a ngi na ko euh, en même ki nga xam dafa am jabar di gént di sëy mm. rab nekk ci moom da koy pousser ci ay xalaat yu négatif maanaam mook jabaram duñu am jàmm parce que tout tout le temps rek day def ci xelam xelam ne day ñaaw njott xelam du dal mm. tey bu soxna si génnoon rab bi mooy push ay xalaat yoo xam ne donc da koy da koy pertivé pour ñoom ñaar ñu nekk ci jàmm day jafe mm. loolu ci côté góor la mm. mu dee jigéen mën na di faral di tardel ay réglam mën na di ko dikkee muy génn di sëy am ñoo xam bu ñu génn sëy bu xëyee dañuy mel dañ leen doon dóor wala seen pooj ñu gis ci lu mel ne ay genre xusee xusee ko loolu rab bi moo koy def na la ba nga xamante ne maanaam doo am benn sentiment ci góor koo nekkal deux trois jours donc yow kooku da naa dafa la def dara te mënoo lii la ma def loolu day am ki ngay soreel ngay gën a amal jàmm sax ci ki ngay jegeel parce que chaque jour day taxale bi day lu ñu yor rek loola day day bi day gaaw mën nañoo xam ci li ñu ko def mais bu ñu mm. da koy def parce que du bëgg nga yor dara mm. lu mu ciy gagné moom rab waaw parce que loolu day yokk moom. Euh, day yokk pouvoir ci ci ci fi mu bokk moom. Mm. parce que tey en général rab du dugg. ko amul biddiw bu baax koo xam ne mën naa am alal mm. rab du dugg ko amul biddiw bu baax koo xam ne mën naa falu ci wàllu nguur wala dara mm. rab képp kum dugg rek biddiwam dafa baax mm. léegi ci kaw biddiw bu baax boobu léegi bu ñëwee moom lépp lu doon sa wàllu wërsëg moom da koy remplacer nekk fa léegi loolu daf koy yokk moom ca fam bokk rapport yow ak wàññeeku gim lay jural fi bokk bari na koo xamante ne mi ngi am rab tey bu yàlla dogaloon rab boobu dañ ci moom rek ngay gis mu doon ko ubbeeku ci wàllu alal wala ko ubbeeku ci wàllu tur wala ko ubbeeku ci wàllu mbooloo mais le fait que rab baa nga fa loolu lépp du mën a am fekk fekk loolu dañul lu ko war a amal njëriñ sax tey boo ko ci waxoon da ngay gis mu jural ko taayeel ba nga xam ne donc doo xam lan moo ko waral donc loolu lépp rab moo koy moo koy faral di am na jigéen ñoo xam tam dañuy wax ne ñoom euh, par exemple fois euh, pour ñu seq ak góor dañuy am problème euh, dañ la koy wax lu bari ne la buñ demoon ba war a àgg ci yenn moment yi sax mën na seen régle mën na anticiper quoi ñëw heure bu mu ñëw yooyu ñu jiñ ko rab loolu tamit nan la rab la loo ci man waaw loolu rab dana ko def. waaye looloo ki nga xamante ne maanaam moo moo mooy soxna si. Mm-hmm. bu fekkee ne xam na ne lii du moment règle mm-hmm. pour mu mën a éviter rab boobu mu dañ. Mm-hmm. donc ci ci ci loolu bu amee mën na continuer def rapport. mën na continuer def parce que nekkul deret bu insister boo xamante ni. Mm. donc mën na wàññi xale bu góor bi dara. Ah, muy mel am na feu rouge yoo xam bu tàkkee demal sa yoon rek. c'est ça maam nekkul deret bu insister boo xam ne. Mm. mën na jural xale bu góor bi feebar wala yow feebar par mm. rapport ak bu doon règle bokkul. waaw mais nag am na ci ñoo xam ne mën na téye seen règle retardal ko tey nga am rendez-vous wala dara xam ne carrément kii jëkkër mi ngi ñëwal dara mu génne règle waaw mais nag loolu fekkee sa règle ne mi ngi ñëw normal donc nga dem ba war a gis sa borom kër mu jékki-jékki nga gis deret deret boobu mën na la bañ a wañ dara parce que loolu ñoom itam dañu àgg ci dañ leen di jox gàllaaj ñu war ko sangoo rek gis gis rek. waaw loolu tamit bu dee ku mel ni man su lay faj dama naa la continuer xam rab dafa bari ay affaire mm. tey bu fekkee ne tey am na benn séeréer da daan def fu mu dëkk dañ koy bañ mm. maanaam man ta yàgg ci benn appartement tey fu mu dëkk ci Dakar day dem ba ñim dëkkal mm. dañ koy bañ a bañ a bañ ba moom day mujj bëgg a tuxu bis bi ma ko joxee garab bi mu ko nar a sangoo moom moo ma ko nettali boppam mu ne dafa ñëw ba tiim garab bi nee na lim daan gis daan ko gént moo ñëw carrément ci kanamam ne ko bul ko laal waaw sëñ bi dalaa def lii dalaa def lii nee na mu gëmm rek sangoo ko ci yàlla ci la loolu dañee ci yaramam mm. mais rab dafa bari lu ne tey fu ñu toll ni bari na ko am na ko jox garabu rab mm. na ko sangoo ko sept jours deux jours lay sangu trois quatrième jour bi day nelaw du koy tëbal waaw donc noonu la ciy taayelee ba du yeggale traitement mais daal ku am faru rab cor rab muy ministre ak doom jàkk yëpp comme mën a doon tey bari na ci koo xamante ni tey mm. manta am ci sëriñ résultat tey bari na ko lay woon la man kat tey lépp loo sangu lu dul lii di darab mënoo sangu gàllaaj bu la jariñ mm-hmm. tey nit day dem sëriñ mu defal ko tul gu baax ñu jam ko mu baax xam ne lii duggul yow nga dem sëriñ boobu defal la même tul gi buñ la jamee mu dugg mm-hmm. ni benn baas boo sangoo rek di sotti ndox mm-hmm. coow li sa yaram rab noonu lay def nit alors que su ko lu mu gis foofu nga dindi rab ci yaramam ba mu set mais bari na koy ñaan lu fu nekk mënta gis résultat rab mooy la dafa am ñoo xam ne dañuy joxe rab booba bu ñu joxee bagage extérieur duñ bëgg a jox sax jigéen GP mu yóbbaale seen bagage yi quoi léegi loolu moom dëgër na wala dëgërul naan GP bu góor la bëgg ak xet yu. <laughs> ay deuxième non loolu existé wul. xetu yàqu na ci yoon bi kon yëpp valable. moom dara amu ci. garab moom bu fekkee ne dalaa wóor ne xam nga xam nga dafa am loo xam ne. Hmm. li yett may naxal bi dafa am loo xam ne tey nit ki. donc ko liggéey. yónnee ko ko. mais li ëpp importance ci li ngay liggéey. Mm. du li nga ko yónnee kese parce que li dem dafa dem waaye li ëpp ci li ngay liggéey yow yaa koy liggéey. secours donc du li nga ko yónnee rek moom rek après fàtte nga ko yaa ngi ci leneen demeewul noonu. Mm. waaye kanta dama ko yónnee ñu yàq ci yoon ba jigéen koy indi yooyu moom daanaka du. Mm. numéro yaa ngi ci écran bu baax a baax Cheikh Omar Bara Sarr ngi def émission bu neex ci biir Tektal TV bu baax a baax ngeen abonné bés furus bés close émission bu ñëw ngeen am ko bu baax a baax euh, Cheikh Omar Bara dafa am foo xam ne faaw ma dugg fa euh, sëriñ si dañ koo fonk mais boobu euh, muy ndoxum siti nga xam naa ne doo kii mais ndoxum siti digg naa da nga ciy yor garab yu baax a baax a baax baax ba xam ku ko mos dina xam ne bokkut ak lim daan mos te bu ko bàyyee mos dina xam ne bokkut ak lim mosoon kon sa garabu ndoxu siti da nga ko wóolu ba sama benn xarit ma tudd ko. <laughs> naa bañ a tudd nag. am na benn sama benn xarit sëriñ euh, doomu kilifa gu mag ah du na lu mag sax. Euh, daje nañ Espagne sax te tamit moom day wax lu am solo ci dëkk bi kooku moom nangu na bëgg a def sax témoignage euh, nga ne kon moom bëgg na ci wax ndax xam sa garabu ndoxu siti kon côté nañ ko kenn xamul kan la léegi ndoxu siti bi mënu ko doon résumé lu mu demee garab yi. mi ngay junj noonu day kilifa. Mm-hmm. waaye yàlla rek laay jël seede dafa mujjoon ne ma. Euh, len de xamal naa la ko mun a ah, fekk maa ngi dajeeg moom buntu këram. Mm-hmm. ndax ci côté këram dama faa jënd benn kër ci lu yàggul. ma dem fa ko seet ñu daje ci buntu këram. Mm-hmm. mu ne ma lépp day mën naa la ko garanti ba bés julli. ma ne ko loolu tax mu ne ma ndax damaa faju fu nekk mënu maa wér mm-hmm. yàlla jaarale ko ci yow. Ah. ma ne ko loolu mbàkki sante nañ ko yàlla bu baax. waaye waa. <laughs> waaw waaye loolu li ma ci ah. li ma ci jublu li ma ci mooy ndoxu siti moom donc dafa bari lu muy def ci yaramu doomu aadama mm. tey damay wax ne bari na koo xam ne mu ngi lay jàmbat feebar bu nekk te bu fexe woon ba faju ndoxu siti mm. donc bari na feebar yu mu doon jàmbat day dañ parce que dafa bari cause yu feebar yoo xamante ni ndox siti da koy indi ci yaram comprendre maa njëkkanteeg temps bi yu bari laa bëgg dugg moo tax waaw c'est ça mi ngi noonu mm. donc pour ñu tënk ko résumé rek ñi nga xamante ni dañuy gis ne que euh, dañuy faral buñ sangoo yaram bi di xasan wala yaram bi di faral di def ay genre heure waaw wala ñuy faral di gis seenu néew xatam goo xamante ni donc dañuy waaw dañuy dañuy nelaw bu bët set duñ gis dara yëngu yooyu yëpp ndoxu siti moo koy def kon ndoxu siti boobu bu ci docteur naa ne day sant docteur Watt caméraman ak Baye Mass ak petit petit moom maa ngi ci émorite docteur kii gaa yaa ngi ci yooyu xarit ba mas jar daal xam naa ne lépp loo xamante ni xam nga moom it manifestation dafa bari mm-hmm. xañ na xañ na xañ na ku ci gën a bëgg lu gën a yaatu sax boo kee di nga gis yeneen yoo xam ne naa ci gën a yaatal ci ci ndoxu ndoxu siti kon ñoon ci doom nday muy doom émorite émorite à général fu mu nekk ndoxu siti jiitu na ko fa. ba pare mm. waaw maanaam moom du ñëw fu ndoxu siti nekkul à général. Mm. te it moom it dafa am ay manifestation xam ne daf koo nuróole ak ndoxu siti mm. lu ci mel ne awra buy jékki-jékki di dellu di gàtt. loolu émorite da koy def te à général ndoxu siti moo koy dooleel. ak ñi nga xamante ni maanaam dañuy faral di di di di gis ne. Euh, dañuy taayal ci say waaw duñ bari duñ bari duñ bari ñu def rapport. mos naa ko ci benn émission gis koo xam ne danaan man moom rapport xëruma ci. Euh, mooy ñi nga xam ne comme mi mel ne am na benn candidat boo xam ne que defe naa bu chaque jour ñu ne lee mu ñëw mais ba léegi mosul ñëw comme ni mu tàyyeele <laughs> Modou Kaña maa ngi nii Karim Wade Karim Wade kañ lay ñëw waa kër Rasoul kuy xaar Karim Wade xaaraat Mariano Dias Real la ko gën a yomb de. Ah. da lay tayeloo ci wàllu sëy waaw doo doo bëgg rapport moo xam ku góor ki moo xam ku jigéen ki mm. bu dee ku jigéen ki la ndoxu siti jàpp mën na di faral di def saa bu ëmbee ëmb bi day ndoxu siti bi da koy lakk mm-hmm. maanaam day sottee ko waat mm-hmm. mais docteur Wade bi dañ ko doon may garab mu dem ba mu yàgg daal xaddi daal comme bu naanoon sa garab ni dootul soxlaati. koy waral damay wax ne garabu olof yi ñuy joxe. Hmm. warta bokk ak garabu tubaab boo xam ne day calmer. alors que nit ki bu fekkee ne da lay traité. Hmm. waru la jox garab boo xam ne dafa bari. dafa dafa war a nekk lu yam tey man su ma doon jox garabu ndoxu cité dama lay jox benn bitolu un litre. Hmm. boo ko naanee gisoo ci résultat rek yemale ko fa. yemale ko fa waaye boo ci gisee résultat nag nga xam ne lii am nga ci résultat après nga continuer traitement bi mais garab bu baaxee. boo ci jëlee benn un litre. yaa war a toppaat di noo koy amee. waaw waaye nekkut loo xam ne danga war a ñëw ñu jàll ci lu bari parce que am na ko mosaw jël biteelu 10 litres di naan ne garab ndox siti la loolu daanaka yim lay indil doo ko xam daal euh, euh, taximaan yi chauffeur yi euh, ñi toog ci bureau yi ministre yi sëriñ si ci boppam ñuy toog te ba hémorroïde di leen sonal ñoom ñëpp koo ci jëflanteel mu bëgg. waaw hémorroïde bu mu ci mën a doon moo xam bi nga xam dafa génn. moo xam bi nga xam dafa nekk ci biir. Mm. ñi muy ballonné seen biir ñi nga mm. xamante ni tamit day jàpp seen wàllu ngóora di ko naxasal. Mm. donc bu mu ci mën a doon ci kàttanu suñ borom buñ la joxee garab bi. boo ko jëlee rek ci kàttanu suñ borom da nga ci gis ak tan incha allah. Euh, Cheikh Omar Bara Sarr ñu ñëwaat tamit ci beneen mbir muy da ne da nga yor garabu ngóora yu doy waar yoo xam ne que li nga koy liggéey bu la neexee sax nga ndax dafa doon lu lu gàncax gu wóor goo xam ne que ci lii la jëm sa degré ngóora daal fan la te da ngay seen chaque jour kenn na ma Cheikh ko ay ci ngóora ba léegi yow wax ñu sa degré garabu ngooro fi mu yor ak garab yi nga defar ba pare moom. waaw lool loolu li ma ciy leeralaale mooy. Hmm. bépp garab bu ma la tudd. Hmm. su ma ko joxee nit ki. Hmm. bu ko mosee gis fenn ca àdduna. waaw ko naan. man doxuma bépp garab bu may joxe maa ko defar waaw maanaam du du garab boo xam ne da ngay mën a wax ne xam nga tey yenn saa nga gis ku jël garab mm-hmm. di teppi ay kii ak di tafak nangam nangam man garab bu ma defal rek ci kàttanu suñ borom boo ko xoolee amul fenn foo ko gisaat na télécharge ko fu la neex mm-hmm. feneen foo ko gis rek bu ko laal mm-hmm. man maay defar samay garab yëpp moo xam lu jëm ci wàllu hémorroïde bi nga wax la moo xam lu xusite bi nga wax lu ci nekk man maay dugal sama bopp ci àll bi ànd ak ñoom karaat ñi may àndal dem dem wutalik sama bopp donc moo jëm ci wàllu ngóora mm-hmm. moom ni mu ko moom moom normalement ubbi tay la jàng tay ubbi tay jàng tay moom da nga koy mën nga ko jël ci bis bi am ci résultat ci bis bi mm-hmm. ubbi jàng am na léegi-léegi am na ñoo xam ubbi tay jàng tay tëj tay tamit yow ah, ba boobu du am déedéet bii moom <laughs> bii moom bu yàlla dogalee bu ubbi tay da ngay xaar bag bi <laughs> ah, kon dégg ngeen ko gorobu ngóora daal kon bii ku jëm sa bopp Euh, dina xam ne ne laal na lu baax loo xam ne du puus mu tàkk ci kàttanu yàlla tey li ci yéeme mooy boo ko xasee jël mm-hmm. xam nga damay wax ne tey nit ki mën na faju si buru mm-hmm. ba wér waaye bu continuer tëdd ci yooyu si buri mën na ko dalaat tey li ngay jël mm-hmm. mu lay mu lay may nga mën a am ngóoro bu normal mm-hmm. tey boo ko jëlee tey sama garab boo ko jëlee da nga ci gis résultat bu palpable mm-hmm. léegi nag boo doxalee lu mat benn 3 mois 4 mois mën nga jëlaat garab bi du tax yow nga senti ne da nga faible ñàkk ngóora mais da gën a renforcer rek parce que li nga daan lekk ak nga daan jëfandikoo comme bàyyoo ci dara ba pertoon nga jëlaat ko ginnaaw suba nga jëlaat ko non non boo xasee jël traitement ñu bari li doon seen problème ci ngóora ñaar am buñ amee koo xam da leen di gis da leen di jox ci bis bi ñu gis ci bis bi après tamit oto bi day pan taxaw ñu soxlawaat kooku ku leen puusaat bu dee tamit dañ leen jox gisuñu dara ñu naan la traitement la li li cëpp li naan la traitement la ci ni ñu koy waxee après day mel ne nit ki bu ko jëlee day mel ne fa mu nekkoon la nekkaat ba après bu ko defee surtout ñun ñi di jox yenn muy jaay ci Tektal boutique yu mel noonu da ngay seen koo xam day jël dara euh, mel na gisul quoi te léegi patience su xaar fa naan traitement la du ko fa def day mel na lii rek baaxul mu tayal léegi yow sa garab moom dafa booleek baax premier jour ubbi tey jàng tey bi day gis tey gisaat suba di xëy samedi ak dimanche moom bu jàng siwul tamit day fekk am na forme daal. waaw moom li jëm solo mooy maa ngi la koy junj léegi ci garab ndox siti bi. bépp garab bu ñu la jox. Mm. dan lay wax ne la lii boo ci jëlee lu toll nii rek mm. war nga cee gis résultat dama ne garab boobu boo ko jëlee tey tey da nga ci gis résultat tey mais nekkul ne boo ko jëlee tey gis résultat tey dafay yem après garab bu la neexee teg ko na le mm. moo tax may la boo ko continuer jël jël ci liñ la jox ba mu jeex man nga dawal benn 4 mois boo xam ne doo ko soxlaa laal waaw xam nga li tax may bëgg bu ñu demee ba yàgg ñuy jëlaat garab yi mm-hmm. xam nga tey nit ki tamit booy booy faj ki ngay jox garab bi donc sa nawle la mm-hmm. te nit ñi daanaka ñi ngay jëflanteel dañuy dem ba say xarit la ñu doon te lii ma lay wax am na koo xam ne bu noppee bu koy seetaan mm-hmm. donc moom da koy jël xam ci li li ci nekk donc li ma ci wax mu nekk ci da koy xam li ci nekkul da koy xam kon le plus important mooy boo jëlee garab bi mën na la doxal lu ma benn 4 mois boo xam ne yow doo ko soxla mais après da ngay continuer nag jëlaat ko parce que bu dul loolu li la li la la feebuloon boo continuer jël garab bi ba ko continuer ci li nga nekkoon donc après mën na la ñëwaat. muy mel muy mel comme tey par exemple boo yor amul assurance policier yi nekk ci kaw tali bi ah, <laughs> ñu jàpp la liñ la jàppee signal la wala nangam tegul ci yoon boo ko bàyyiwul dañ lay jàppaat. c'est ça léegi nag kon boo jëlee garab bi mën na dem lu yàgg. mën na dem ak plus de 4 mois yoo hmm. yàgg comme li koy amee du metti kon daal ngóor ku nekk mag ak yëpp ak ku man di doon bu mën na ko am bu ko jëlee tay rek gis résultat commencé doxal insha allah dégg ngeen ko numéro yaa ngi doon ci écran bi bu baax a baax bind bi leer na bu baax a baax euh, Cheikh Omar Bara ñu ñëw tamit ci wàllum asma ñi nga xam bu xiinee ñu am problème bu nekkee fu xat am problème bu tawtee sax mën xiin xeetu xiin daal xeetu asma waaw asma day mm-hmm. euh, liñ koy fajee sax soriwul waaw daanaka moom

dama koy traité ba mu wér. waaw te te te médecin yu bari xam dañuy wax ne asma du wér. man dama koy traité ba mu wér. macha allah kon dégg ko ko am asma estomac nag ñi nga xam ne xeetu day xeetu géex xeetu yooyu yëpp daal ak biir bu gonfale yooyu yëpp ci da koy delluwaat ci estomac wala. waaw xam naa ne daal lu ci nekk yenn saa boo ko tuddee sama xel am ci ñum dem parce mm-hmm. lu ci nekk da nga ciy ak ñoo xam ne nañu mm-hmm. boo mm-hmm. xool émission yi li tax du ko bareel ñu bari yow ci ñi ngay faj daanaka ñi ñu koy jàllale rek bala nga bala ngaa faj ñëpp da day daal di doon boppam temps bu baree baree bari loolu moo tax émission yi du ma ko faral di baril waaye lépp solo mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu estomac bu demoon ba nga xam ne nit ko dañ koo tere lépp lu saf ne ko bul ko lekkati tere ko café tere ko attaay tere ko lépp ci ndimbalu yàlla su ma ko joxee garab bi bu jëlee traitement bi bi jeexee jours lépp luñ ko tere woon mën na cee dellu bu jeexalee traitement bi nag moom day tàqalikoo euh, estomac ci kàttanu yàlla léegi koo xam ne yaram bi dafa mel ni dafa am lu ciy dox mu jàpp ne dañ koo liggéey wala xamul lan loolu lan lay doon tam mën nga ko dindi. ñaar moo koy def. Hmm. bellax dina ko def benn xeetu kort la boo xamante ni am na ñu koy sànni du ma bëgg di tudd ay xeet yooyu ci seen wey lañ koy def di ko dóor. Hmm. loolu dina ko def tey nit ki jàmbat la bopp ëllëg mu ci tànk bi ëllëg mu jàngat la biir affaire bi di daw ci yaramam. Hmm. lool dina ko def ngelaw tamit dina ko def. mais lu mu ci mën a doon ci kàttanu suñu borom. bu fekkee da ngaa sori li la yónnee ndox rek lay doon. ndox la ñuy jël def ci liñ ci def koy naan. day set wi ci ceew bu fekkee ne da ngaa jege nag bi nga ñëw indi ko ci ndimbalu suñu borom booy dem doo ko yóbbaale waaw barke rasulaay dégg ngeen ko tellement dégg tamit Euh, nga ne yow rab ci téléphone da nga koy lijjanti ci téléphone fi mu toog. waaw bu fekkee ne nit ki dafa dafa nekk di daanu. di def ay affaire di sonal nit ñi. Mhm. bu ñu bi ci kàttanu ci laa koy calmer. ba ngeen mën a ànd ñëw doo ko bu fekkee ku nekk en distance. Mhm. ñu may woo mi ngi nekk ci jël la maam mi ngi daanu. Mhm. di def ay affaire bu ñu ma jotee téléphone rek automatiquement kooku moom danaan selaw nelaw. léegi nag bu fekkee luñ ko war a yónnee la fekk garab yi yëgul ci moom dootul turbale yow ku la indiloon ku dem ba am lu mat vingt deux ans te waxul ñu jiñ koy rab nga xam day toog di beru ne tekk kooku mën nga ci dara. waaw bu fekkee ne waxul. waaw ku mel noonu nag yàlla dogal na dimbali nañu ci lu yàggul dara rek. Mm-hmm. ku ci koo xamante ni lu mel noonu dal noo ko toog toogaay bu yàgg boo xam ne waxut ak kenn. léegi nag bu fekkee ne rab la. Mm-hmm. manees na ko dindi ba mu set. lépp loo xam ne rab doo koy def nit. Mm-hmm. moo xam doo koy beruloo. gisoo ko boo xoolee ni xool ko ni kii kii nii boo xoolee da nga xam ne mën nga ci dara ba gisoo ni la waaw mi ngi amee. kii bu kii mën naa ko faj. digganta. si kàttanu yàlla mën naa ko faj ba mu waxee ki mbokkam. ba mu waxee ki mbokkam ak ñi fi dolli. yàlla xam na ko. ah war naa ko wax ak waa Amérique. allah beneen bi ci topp ma même ki nga xamante ni. waxuma la waxuma la ñàkk ñàkk waxee ki mbokkam waaye. Hmm. rab jàpp na ko ba mu doon magam mu di tuur ndox. ci kaw lal hmm. maanaam lépp lu rab di def nit. ci ndimbalu suñ borom mën nañ ko dina ba mu set. mën jeex na kon ah Cheikh Omar Bara Sarr numéro yaa ngi ci écran bi bindal bu baax a baax a baax ma njëkkanteeg taay abonné leen TV bu baax a baax njëriñ lan yor bu baax a baax a baax euh, vidéo bu nu war a seetaan nga de ñu seetaan benn ñu dem seetaan vidéo bi comment comment devenir un s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous comment devenir un homme gis sur scène Madame, il a eu une on the inside. gartanasan kat ku daaka fekk waaye moom lu ma fekk sa mbaaba nee na sa mbaaba nee na moom moom wax du waxtaatu dëgg maakan moom sa mbaaba sa mbaaba sa mbaaba ah maakan ku daaka fekk mooy mooy ki ma la wax sëñ Assane Kan sëñ Assane Kan fu mu ne moom nasuru nasuru man moom ku daaka moom ngent ngent la nekk ngent ngent waaw maa ngi ko dàq man man ngent xam nga rond-point ngent ngent. ngent waaw. waaw rond-point ngent sama papa fa la fa la sama papa fa la fa la am kër. waaw escale escale ville bi ñu bi ñu wax. waaw boobu du ma ko wax ndax baaxul bëgguma ko. waaw waaw. bëgguma ko léegi maa ngi ko dàq fekk. xam xam xam nga xam nga loolu li ma waxoon sànq nii la bëgguma xam nga loolu lan. yow. waaw déedéet li ma waxoon sànq laa wax ni bëgguma xam nga mooy lan. li nga bëggul. ah yow yaa ma koy wax loo bëggul. li nga bëggul lu doon alxaaji Alim Alim Sen. moom moo la jox ndigal nga indi ko fi. moom hmm. moom ñoo bokk ndey ak baay. ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay. ñoom ñaar kese. dama la doon wax dama la doon wax ak baay. dama la doon wax dama la doon wax. ñeent la dëkk sama sama kër Paa dëkk sama kër Paa ma de. ñoo bokk ñoo bokk ndey ak baay. maa ngi seen mag damaa dëkk fii. Sénégal Tall Sénégal Tall moo ma mbeloon. Sénégal Tall moo ma mbeloon. Sénégal Tall moo ma mbeloon. Mawla Mbédior. waaw boobu boobu noonu foofu du du loolu man foofu fekke fekkee kan yéen yéen ñii ñëpp kan mu fekke oto boobu noonu oto boobu noonu tam tamul do tam te loolu loolu sax loolu loolu doon wax naan salim tominal ahda ittural man kese maa ko wax de. moom dafa ne salim tominal ahda moom naa mu ngi foon de. moom bi ngeen foon salim tominal ahda mm. yaa ma dégg waaw salim tominal ahda d'accord si diggal waaye juróom bu góor. man nanu sangaleñ sax dama ko doon lekk nanu sangaleñ. tax nanu sangaleñ xaw ma xaw ma xaw ma xaw ma góor xaw ma nanu sangaleñ xaw ma xaw ma nanu sangaleñ xaw ma nu ko nit mën a nu ko nu ko loolu mën a kii di ko lekk nanu sangaleñ. nanu nanu sangaleñ nanu sangaleñ dama ko doon lekk ba pare fële fële fële waaw fële fële fële ne ak fee man la ay puub sax dama koy lekk. Ah. waaw ay puub sax dama koy lekk man. te ñi nga fi fekk daanaka ñoom. waaw lépp la ñuy lekk ñoom it. man man ay puub dama koy lekk man. ñii ñëpp lépp la ñuy lekk ay ñoom aboo ñii ñoo la daa ko a lekk puub foofu. mais sax am na sax ay ma toogoon sax souvent ñu. sax. lu ko waajal bu góor mos naa kaa lekk xaaral ma ko ndax mos naa kaa lekk. waajal bu góor mu tudd. xaaral ma xaaral xaaral ma ko ndax mos naa kaa lekk. Fallou Sène Sène. faut que je vous touche s'il vous plaît. donc laisse-moi tranquille s'il te plaît toi aussi. donc bàyyi ma liggéey. je m'explique. d'accord am xool na sax mos naa laa lekk am. ndigal way juróom bu góor Fadilou Sène. Hmm. waaw mos naa laa lekk kay. mos naa mos naa lekk sax kay. suba. ana sax kay. andi ko. ndigal Fadilou Sène non d'accord. Euh... Alhaji Cheikh Sène ngeen indi mu am mu xel. Alhaji Cheikh Sène lan moo la dal. il faut que je me retrouve s'il vous plaît s'il vous plaît. waaw ah attends s'il vous plaît. vous êtes glorieux. vous êtes avec seen mela s'il vous plaît avec seen mela. non ça. avec seen mela s'il vous plaît. non non Vous êtes plus que Golorian Mes droites. Donnez-moi ah, comme vous le voulez. Non, non, non, même pas mes gauches. Moi, oui. je okay. me Comme vous le voulez. Non, non. Donnez-moi Eden Park. c'est-à-dire Eden Park. bi nga ko dalee léegi ci lan la toll. léemu yàgg na. def na fukki at. waaw war na koo jigéen bu ko bu ko motul. nan la tàmbalee woon. nan la tàmbalee woon. xam naa daal euh, bi muy doog a dikk ci moom. xeeti yu mel ni day buy dem mbuur di euh, kii moom nu demee nii ah kër rasul la daal yaay jaar gaay moom moom nag reeloo na waa kër gi parce que ay waxam dafa xorom mhm. waaye yàlla defal nañu ci sutura moom mi ngi jóge woon Jurbel yàlla defal nañu ci sutura ba yàlla dogal mu wér ci jàmm waaye gis nga biñ koy doog a indi bi mu toogee ci bureau bi rek dégg nga yim noonu wax mhm. eh, nee na nee na nee na nee na nenu sànq lañ mas naa koo lekk mu jege mu jege mu naan ay ay ay dama nag la bëgg eh. yaa ngi ki ko tim ni it abo moom it moom it Dakar la jógee woon ñëw fii moom moom moo te gis nga tey bokk na ci ñi nga xam ne ndeysaan ñoo ko ñoo koy jàppale ci liggéey bi kon loolu lépp ñu ngi koy sante yàlla macha allah yal na yàlla barkeel bu baax a baax léegi da nga am làmb ju fi doon am da ngay ñaanal mbër sax moom nga ne Senghor yeeg yooyu yëpp da nga koy lijjanti am na mbër moo xam ne laal jutu sa diggante ak làmb pour mbër yi xam ne da ngay yëngatu ci waaw làmb day dañ ca yor ay ay yu kawe xam nga hmm. li ñu yor lépp day ay bagage su mag te te làmb moom day fu mag day lu hmm. yàgg hmm. euh, sengoor yi nga xam da ngaa yor dóor mu daanu ci boppam ah, lapitaake lapitaake dama koy liggéey ci lu matul trente minutes trente minutes lapitaake mën naa ko liggéeyal nit <laughs> bu ma ko defaree ba noppi jox ko boo ko takkee bu ko neexee bu koy essayé mbaam lay dem mbaam mbaam bu ko rëkkee day onk ba wàcc ba du dee. déedéet du dee nag ndax daa am lu ko yëkkati. <laughs> kon dégg ngeen ko bëri ah. waaye li nga xam ne moo jëm ci wàllu samp mm. te am na samp goo xam ne su ma ko liggéeyee ci kuur laa koy liggéey ci miir laa koy samp mm. lu ngelaw li bari bari du daanu loolu tamit su ma koy liggéey yenn saa nga gis ay terrasse yoo xam ne ca kaw day am ñax yuy sax ca kaw terrasse ba loolu day am waaw léegi nag loola ñax yooyu moom la ñuy jël ci la ñuy liggéey samp boobu mbër moom ci kàttanu suñ borom buñ ko sampee ci bis booba hmm. maanaam buñ ko buñ ko bu doon sax dañ koo jekku moom ci wàllu doole ki muy bëreel dàq koo xeex wala ëpp ko doole dafa am ñaar ñu doon bëre ku dëkk côté Guédiawaye ak ku dëkk côté Pikine léegi waa ba waa Pikine am waa Pikine mel na lu bëgg daal. <laughs> waaw loolu sant yàlla la. waaw boobu nu mu ko lijjante woon noo koy côté. waaw loolu dafa dem ba dari ñeel mama yi ñee ah. ñoo njëkk a wax. après ah. mujj ñu kii ñu dem ba dari ñeel ma yi. <laughs> am benn soxna damay bañ a tudd turam. Ah. yaakaar naa war naa la yëf yi. Mm-hmm. mu wax ma yónnee la mu war a yónnee. waaw loolu loolu ëpp na birig de. waaw birig. brique mooy mool mais bu dee ci kéeta nag moom brique moom mooy million daal comme moo loolu. waaye waaye lam ca bëggoon am am na ko waaw am na ko. te man damay wax ne mbirum làmb su ma hmm. jokkoo ki nga xam ne mooy mooy mbër mi ci boppam. Hmm. maanaam li ma koy defal bu ñu waxtaanee ba tënk. parce que que da nga ne intermédiaire yi léeg-léeg dafa am lu hmm. yu ngeen ki yoon dañ koy daal di fam duñ ko def. te loola dana indi yow nga mere mbër mi fekk ne yëgul sax ci moom. man dama lay wax ne la comme combat bi date sàngam la. man bu ma neex nga bàyyi jours avant combat. ma liggéey li ma lay liggéey. Mm-hmm. soo daanul benn dërëm doo ma ko jox. te ci ndimbalu yàlla daan gi li lay wan ne li nekk loo xam ne dañ koy tanale. Mm-hmm. dana la ci jox ay tegtal yu wér ca na ngay dem na na mi demee. incha jërëjëf kon mbër yi ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax Tmax ak Diène Kairé suñu xarit la ak euh, yeneen mbër yi ñoom Sa Thiès ak ñoom Modou Lo ak ñoom Balla Gaye ak ñëpp ak Boy Niang Ama Baldé tudd na ñëpp ah mooy ak El Hadj Bécaye Mbaye euh, beneen mbir mooy kaaraange fii dëkk bi toll nag jëm ci côté ay élection yu mel noonu mbir bi jaxasoo euh, ku ñàkk kaaraan gis nañ sax ñenn dañuy ànd ak benn candidat jaare fa ña ànd ci boppam di xeex xeet yooyu am daal nga xam ne que tension bi yëg na ku bëgg kaaraan gu wóor nga xam ne fetal ak puus ak jaase euh, paaka ak du mën ci dara daal mën nga kaaraange bu wër. waaw kaaraange du nga fa am solo. Mm. ama kaaraange dafa bari te bokkul. bu mm. ñu li lay musal ba nit du la mën a liggéey. Mm. Euh, bokkut ak li lay musal ba nit du la a sànni korte fu ñu toll nit dina yor gàllaaj goo xam ne nit du ko mën a liggéey hmm. waaye boo ko liggéeyee tey liggéey ko tey mënoo koo jàpp boo ko hmm. ba jàpp ko hmm. waaye mënees na ko defal kaaraange goo xamante ni day tax kenn du ko mën a sànni korte mu dal ko waaye nit ki da nga ko defal kaaraange boo dee lappetaake googu ma lay wax xam nga lappetaake baatu pël la ah. mooy oo lappetaake ça veut dire kii kenn du ko dóor mooy lappetaake mooy kuñ du dóor bu mm. doon lappetaake ko goo ko yoree da mucc ci jaas yi da ngay mucc ci lépp parce que lépp lu jóg jëm ca kaw du yegg sa kaw mm. tey même boo ko seere woon sa loxo génn di dugg si waat sa kër xale yi namm la daw papa ñëw na mm. xale bu la jub 100 mètres day daanu du yegg si waaw lab tàggoo tey boo ko yoree nit mënu jam parce que du kenn du jóg ak fitna yegg sa kaw mm. tey bu ñu jëloon loo xam ne dala koy sànni bu ko yëkkatee ci kàttanu yàlla loxo bi du wàcc fekk wàcce woo ko waaw te gàllaaj la goo xamante ne gu gu gu am doole la macha kaaraange nag euh, comme ku nekk bitim réew nag di liggéey ci société boo xam ne que ay tubaab la soit mën na doon moom nit ku ñuul am doole tubaab yi ko dara xeetu kaaraange boobu nga xam ne que ay yàq tubaab bi africain bi mooy def li mel ne dañ koy xeex daal xeex yu mel noonu kaaraange mën nga ci dara ba du ko yàqal dara. waaw loolu dafa am benn gàllaaj bu ñuy wax takk ta mm. ba. takk ta ba takk ba. takk boo ko takkee da ngay të lu waay jëm jëm day baax. moo tax mag ñu tuddee ko takk ta ba. takk ta moom bu fekkee ne da ngay takk ndomba. Mm. ndomba gi cinq gaaw lay doon. bu fekkee ne doo faral di takk ndomba dañ la koy defal sangat cinq fois koy sangoo. Mm. mais loolu amul lu nit di jéem ci ko ba mu sotti. duñ mën ci yow tamit kaaraange gi nga xamante ne maanaam dafa jëm ci wàllu tey euh, ki nga xamante ne xëy na jéem na ci wàllu liggéey mënu laa liggéey jéem na laa korte mënu laa korte jéem na laa yàqal fu nekk mënu yàqal léegi lenn rek la desee pour waxtaan ak sëriñ boole laa rab xam nga rab doon ko booleeg nit mu topp ko di yàqi mbiram même loolu lépp day bokk ci biir kaaraange gi waaw nga xam ne kenn du waaw kay waaw euh, léegi euh, fal ak folli nag maanaam ak ku bëgg a doon njiitu réew yooyu yëpp mën nga ci dara. waaw loolu am na luñ ci am. waaw ci kàttanu yàlla ki nga xam ne dafa bëgg a falu. Mm. ak lu mu bëgg a falu lu mu mën a doon. Mm. muy jiite FIFA ak CAF ak yëpp. lu mu bëgg a falu rek ci kàttanu suñ borom. Mm. maam lépp lu jëm ci fal nga xam ne da fas yéene jiite ay nit. Mm. loolu am na luñ ci am loo xamante euh, lan koy liggéeyee ay secret la yoo xam ne. Mm. xaw na sori ci biir waaye nag li ci ëpp importance mooy bu fekkee ne ni yaa ngi ci réew koy defee la cay gën mooy yow nga ñëw ba yegg si. bu fekkee nag koo xamante ni nekku fi. du boobaa loola dana mën a dem waaye yóbbu gi day jafe ndax nekkul lu ndaw. nekkul lu ndaw ah nekkul lu ndaw waaw. Ah, moo gën. mooy gën a jeex na Euh, bayra bu saf sapp na ku ko bëgg nga xam ne que léppam day dox bu baax a baax conteneur yi jar euh, parking yi jar oto yi jar ñu koy tudd ci jàmm te ñenn ñi tamit dañu demel ne da nga ne dañuy jaawale siiw ak bayre te wute na daal. waaw siiw ak bayre wute na xam nga dafa am bayre wàllu. Mm. am bayre bu ñuy wax neegul ngoon. Mm. am bayre géwél bokkut ak bayre njaay. Mm. fu ñu toll ne bayre yi ni mu wutee noonu lay wutee ni muy defee effet. tey ki nga xamante ni exemple dafa yor lu muy jaay. nga xam bayra njaay la soxla mm. kooku la koy dox ci njaay mi rek la concerné concerné wul bayre boppam mën na di xëy di jaay de millions te kenn du ko xam waaw am koo xamante ni bayra wàllu lay soxla bayra wàllu mooy ki nga xam ne moom yorul waaye bëgg na bayre boo xam ne yàlla da leen a dénk ñoo mm. bëgg ñoo koy jublu mm. loolu ne ku wàllu ku ne da nga bëgg ku lay dimbali ah, a xam ne yàlla dogal na moom yorul waaye bëgg na bayre am am yi borom doole yi pour ñu mm. jublu ko nga xam ne lépp lu soxla dañuy taxaw ci mbiram mm. loolu mooy bayre wàllu mm. bayre bi ñu wax ne ngoon artiste lay arrangé parce bayre boobu day ñëw rek dem maanaam tey da tëgg fenn bëgg mu fees bu ñu fa defee bayre bi ci ngoon gi nga ko soxla. ci la bayre bi def effet foofu day fees dell. waaye bu xasee fanaan rek day daal di jeex. bu fekkee ne koo xamante ni tamit donc dafa am benn public bu mu soxla. ci hmm. benn instant bu wax ak ñoom. <laughs> waaw su boobaa moom bayre mën na ko utiliser. Hmm. mais ci jamono bi mu ko soxlaa. Hmm. jamono boobu la koy utiliser ci la yem après day jeex. léegi nag bokkul ba tey ak bayre wàllu bayre wàllu moom boo ko xasee am day continuer nekk ci yow. léegi nag dafa am beneen xeetu bayre boo xamante moom lañ ko bayre géwél. bayre boobu nag boo ko jëfandikoowee maanaam fépp foo mën a nekk ci kàttanu suñu borom bayre bi day day day joué. mais bayre day rouge wala xam nga yow sànq bi ñu toogee rek may naa la may ma tuuti euh, ab artiste bu may woo boo xam ne que daway foo ko nattoon ci bayre am na ko mu te léegi mu leer na amatu ko te mi ngi fi ba léegi te tëlewul way xeet loolu yow boo defaree bayre à vie la wala dafa am fu mu toll jeex. waaw bayre day ruus ci xeetu bayre bi nga soxla. Ah, ah. parce que bu fekkee ne bayre boo xamante ni maanaam danga ko def ngir mu jàpp ñëpp. nga xam ne foo nekk di yëngal bayre boobu day ruus. day ruus waaw bu fekkee nag bayre bi dafa am ñu mu concerné. Hmm. exemple tey yaa ngi Sénégal. Hmm. mais Sénégal moom bëgg nga képp ku fi yeewoo da lay gis di la bëgg. Hmm. bokkut ak tey ki nga xamante day bëgg lépp génn partout dans le monde. tey ki nekk ci réewu tubaab bi bëgg bayre boo xamante ni maanaam day continuer à vie ci moom. day nekk bayre boo xam ne day concerné tubaab bi. kon xeetu bayre bi xeet bayre bi bi day concerné bu fekkee da nga bëgg mu yàgg ci yow day concerné xeet bi nga ko soxlaa. mais bu fekkee bayre boo xam ne dafa polyvalent. donc bayre boobu yàgg-yàgg mën na ruus. yow da nga ne euh, ci mu ñëw da ba dugg ci pousse pousse mën nga fexe. faj ko dox waaw. ma waxuma nag rek kii bi nga kii mu yàqu de ma ñaari fan rek nit ki delluwaat ci problème quoi maanaam faj ba mu wér ba nit ki dox normal mën na nekk. xam nga dafa am xeetu dox yoo xam ne mm-hmm. maam nit ki ki ngay faj mu koy dox nii. même ñi seetaan bu deful danañ xam ne lii. Hmm. donc du faj. Hmm. waaw parce que nit ki waaw nit ki ak lu lu ko mën a metti hmm. am na nooy fuddee cëram diggante bi ñu teg ñaari paa ñett lool du dara waaw loolu du dara waaye li ëpp importance mooy ki paralysé nga xam ne dara mënta jóg nga faj ko ba ne ba ne ko jógal mu jóg loolu boo ko takku ñu jàpp naan ko tegal benn paa tegal ñaari paa ah. man li may li may wax ci wàllu faj li may wax rek sànq li ma lay junj rek waaw waaw maanaam day loo xam ne li may wax nii saa su nekk damay xam ne am na ñu koy seet ñoo xam ne dund nañ ko ak ndax ci dëkk bii ma nekk xam nañ ma bu baax muy Touba gi ma ne te te nit ki mënoo waaw waaw waaw am na loolu boo ko waxee rek ñi ko xam dañ koy dañ koy mën a seede si saa léegi cancer da koy faj nga ne bu matul 6 mois. bu fekkee ne amagul 6 mois ci nit ki. te nekk ci xolam. nga xam ne cancer bi yàqul première partie xol bi ba jël deuxième partie bi. buñ ko fajee ci kàttanu yàlla fi mu yemoon la yem. maanaam li cancer bi jot yàq. loolu du defarwaat. mais cancer bi du continuer maanaam day dañ koy rey maanaam du continuer di yàq deuxième partie xolu nit ki. parce que bu xasee ëpp 6 rek mën na dugg ci deuxième partie xolu nit ki. dafa feebar boo xam ñemewu ma wax sax bu baax nga ne da nga koy faj ba déclaré nga ko ci benn hôpital. mais hôpital yi ñi mun ko yëkkati mu jëm kaw muy feebar boobu ñu wax Sida Sida. waaw Sida maa ngi am secret bi depuis 2018. 2018 waa gars yi duñ jàpp ne waxu dof ngay wax. waaw mën ñu jàppee ko lool parce que fi ñu toll jamono. wóor nga ci sa bopp dëggantaan. Hmm? Ah, na kon. Kërësul lay tegtal li suñ demee la dañuy yëkkati di wàccee ñoo ko moom ah. Hmm. dañ naan kii est-ce que mi nga ànd xelam. loolu lañ koy jàppe mais damay bëgg ñuy bàyyi xel ne suñu borom. mais da nga ne 6 mois rek bu ko xasee def moom. nit ki nag kooku mënatul ci dara waaye bu fekkee nit ki teel na trouvé ne moom sida mi ngi ci yaramam. xam nga dafa am xeetu feebar yoo xam ne amoon na. xañ na tur yi ñu koy tuddee léegi ak bu njëkk moo bokkul. te dafa am loo xam ne tey bu ñu la ko waxee nit xel mënu koo nangu. te fekkee ne lu wér la. tey am na loo xam ne nit ki bu ko jëfandikoo wee. maanaam kenn mënu ko wàllu feebar ba ci sida boobu tey am na loo xam ne nit ki bu ko jëfandikoo wee. bu tëddoon ak ko am sida sax mënu ko wàllu sida bi. te loolu tey boo ko waxee ci ñi nga xam ne zaay rek lañ xam. Hmm. dañ naan loolu noonu loolu c'est impossible parce que hmm. nit ki bu defee rapport rek ko mm. am na feebar yu fi daan am daan wàlle mag ñi am ñoo am secret yu ñu yoroon daan dund ak ñu yor feebar ñooñu ba ñooñu jógee fi te duñ leen ko wàll. Mm. am loo xam ku ko jëfandikoo kenn du la wàll feebar. mais sida bu fekkee ne nekkul ci yaramu nit ki daw ci moom pendant 6 mois. Mm. mu teel a dafa am sida. danañ ko jox garab yoo xam bu koy naan da koy raxasaat ci deretam ba set. parce que nekk fa woon te la ko fay indi rek moo ko fay jëlee. Euh, waxtu benn dab looy tàggoo bu dul tàggatoo koy sant ak gërëm doyalul mais dinañ fi ñëwaat dinañ bari la émission incha allah. waaw xanaa di santaat yàlla rek. Hmm. li ñu waroon a jiital ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te waaye xañ na tooñ yi ma doon tooñ ci vidéo bi moo tax ma xaw cee kii. <laughs> waaw mu ngi noonu di di di ziare waa njabootu kër El Hadj Baar mu Serigne Fallou gépp di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Serigne Abou Baara Fallilu ndax mooy sunu buntu ci kër Serigne bi di di di ñaan jàmm ci réew mi di ñaanal euh, ñaanal waajur yi di ñaanal ñëpp rek bañ a fàtte kenn waaye yéen di leen ñaanal ak yokkute. ndax li euh, a ngi déplacé ba Dakar. ñoo fekk si ma Touba te loolu wax dëgg yàlla kawe na ci man lool. waaw kawe kawe kawe na ci man gi nga xamante ni ñooy ñu jàppale ci liggéey bi ku ci mel ne Ngañ ak Serigne Saliou. Bokara bàyyi ma kenn ñoom ñëpp sama leen di siyaare. ñoom laa njëkke ñoom laa njëkke doog cee teg ñoom ngañ <laughs> soxna yi yaa ngi waaj a dolliwaat beneen wala temps yi. ah loolu nag jël ma ci suuf. mu jël ah, ci suuf waaw <laughs> jël bañ nag kon daa ngi tàkk daal. <laughs> ok suuf nga bay jël moom moom daal bég nañ ñi ngi siyaare ñëpp di ñaan réew mi yàlla def fi jàmm. Euh, yàlla doon dolli la képp ku nekk fa nga nekk di fa dund yàlla la fa yàlla defal jàmm. ñi ci yàlla génne leen. ñi ci hôpital yàlla wéral leen. ñi ne ci kër yi te jaaxle yàlla faj seeni soxla. lépp képp ku nekk ci yoon di tukki yàlla yàlla jàppandal yoon wa. ñi bëgg a tukki te demaguñ yàlla leen yàlla yóbbu. ku ci ne damit ba nga nekk daal di ci yëngu yàlla la ci yàlla defal li gën ci yow. barke yonent yàlla Muhammad barke Cheikhul Khadim. gërëm nañ ñëpp ñuy seetaan tegtal bu baax a baax gërëm nañ ajaratu mareetu Diop aja mareetu Diop ak fa Soda Marème Samb gërëm nañ ko bu baax a baax a baax gërëm nañ Fatima Samb gërëm nañ Awa Grand Yoff euh, gërëm nañ tamit euh, Awa Grand Yoff ak Soda Marème ak euh, Fatima ak Mam Diarra Mam Diarra Samb ak Dame Samb patriote ah GG gërëm nañ ko bu baax a baax a baax ah Mohamed ak kan Aïssa Aïssa gërëm nañ ko bu baax a baax Aïssa Aïssa wutil bayre nag bayre nag ah papa Cheikh gërëm nañ ko moom papa Cheikh euh, moom mu bëgg Barça de ah GG bëgg Real ah. gërëm nañ te aji mareetu jóob tamit di xaritu maam Jaara Samb aji mareetu jóob Euh, bëgg tegtal bu baax di wax nit ñi ñuy abonné suñ lépp nekk ci Grand Yoff bu baax a baax gërëm nañ Ousseynou Ly Allemagne Mami Danfan France Sayer Fall Espagne Babacar Diop Icon International Madrid gërëm nañ Mami Danfan euh, Sayer Fall Espagne ak kan maa ngi réer de Fat Diop Amérique Malick Jité Grèce ñi bëgg tegtal TV Abdou Khadir Wade Barcelone Euh, ñi bëgg tegtal daal abonné leen tegtal TV bés furus bés kulas émission bu ñëw ngeen am ko bu baax a baax a baax euh, gërëm na équipe technique bi ñu àndal balaa équipe technique bi ma jox leen yoon bu mujj ci biir émission bi numéro bi 77 818 15 15 77 818 15 15 bés 77 769 21 21 77 769 21 21 Cheikh Omar Bara Sarr nekk ci Touba numéro bi am na whatsapp nga dir ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara te mën na lépp écouté bi àndal Mohamed docteur Wade bu Casamance nekk ci euh, borom këru Ganga Wade Baye Massamba Diop nekk ci moom borom këru Maya euh, Petit Sow euh, nekk ci borom këru Rahma PG Xarmat moom ñëwul tey gërëm na maam Thierno Badiane borom këru Inconi parce que jabar ji siiwul kawul dikk loraanga dakk ngeen abonné Tektal TV soxna May Diop ci réalisation bi sëñ Fallou Mbacke Diop alaaji Sulux Ndiaye soxna Zeynab gërëm na ko nijaay Seexu Jaxate Daam Diop soxna Faat Jaxate Tektal TV xewul dikk loraanga dakk loxo bi ci force barke res a baax a baax ku na de Pape styliste Papis naa la ko jox dégg ma ko de man moom ngi Ndiaye Diop Sam